wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri man abaat ñu ñëw tey jii ngir ñëw andi sunub liggéey euh, daayira bi tudd daayira bëgg Cheikh Mamadou Fadal numéro un ca Ndakaaru ñoom ñii ñoo ànd ñëwoon ngir indi liggéeyu mbooloo mi mbooloo mi nag mbooloo mu takku lanu waaye danoo yebal ñun ñii rek di wax ni tamit ñi ngi sant sa doom yi nga xamante ni say waa kër lanu muy sëriñ Galas mu Cheikh Mamadou Mourtada moom sëñ Fallou ak sëriñ Abo moom sëñ Modou Xaban moom ma du Fadal ndax ñoom jàppale nañu ci liggéey bu baax a baax a baax am mbégte nag ak contentement bu baax ndax. Euh, di la ñaana rek nga yàgg fi ndax comme liggéey bi ci yow la ko yàlla jaarale eh, yal na yàlla oyofal yan bi yaa ngi ngi ko àndal ñëpp ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp waa daay waa Touba yëpp ñu ngi leen di nuyu. di la xamal ne sëriñ bi daal ñun taalibe Cheikh Mamadou Fadel yi ñoo ngi nii ñu ànd ci liggéey bi itam eh, nekk kenn itam sa njaboot te newal la fa itam waaye ñuy santaat yàlla biñ ñëwee itam. nekk njabootug Cheikh Mouhamadul faadal ñu fekk liggéeyu Sëñ Tuubaa bi ñu fekk la ca bunt ba kon loolu ak sant la ci ñun kon bëgg yaa ngi nii nga ñaanal leen bu baax suñ borom yokk leen te dimbali leen te taxawu leen te sàmm leen te aar leen bëgg liggéeyal suñ tubaab dong moo leen daal moo tax ñu dajale seenu ñaq di ko fi indi nga ñaanal leen saa boroom yokk leen ndax am murit moom ñaar rek ñaq ak ñoqi rek waaw nañ am lu ne gàññi daal bu sëñ bi laajee ñu mën a génn joxe waaye bu fekkee liggéeyu kàttan moo moo moo moom la sëñ bi santaane ñu am kàttanul def loola. mbootaayu bëgg sëñ Fallou nee na ñooy ñooy numéro un sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu. mbooleeg mbooleem ñi nekk seen ginnaaw te ngeen représenté leen fii nee na mi ngi leen di jottali cantuk Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba tey di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ak mbooleem ñi topp ci gannaawam ci liggéey bii Eh, di Touba ci kanam sëriñ bi nee na mi ngi bëgg ci seen jëf ji lool ndax yitte ji ngeen def ba waxtaan dajale seen addiye jóge ba ndakaaru ak fu ne ci réew mi dajaloo ñëw indi ko waaye yéen ji ngeen ko defee ngir liggéeyal sëñ Touba lu ci ne matt na sëkk ak cant sëñ bi nee mi ngi leen ciy sant di leen gërëm ci tulu sëriñ bi ak turu mbooloo mi topp ci ginnaawam waaye mi ngi leen ñaanal itam. ku ci ne sa kàttan ak sa man-man ak sa wér ak sa tal yokk ba loo bëgg a def ci lu baax nga ma ne ko na nga ko bëggee nee na jëf ji rëy na ci moom lool ndax xam na ne yéene ak yitte moo ko ëmb ba mën a si ci moom kon daal sant na leen gërëm na leen mu ngi seereel sëriñ bi seen jëf eh, mu ngi leen di ñaanal itam ak yokkuteeg tawféex ci barkib sëñ Touba maskani tubabat misras mi abi jaayi xayri manabat